awsu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim man la ñuy wax Mamadou Diallo ñu gën ma xamee ci Lodja tu mooy turu artiste bi quoi doomu Dakar Plateau juddoo Dakar Plateau màggee Dakar Plateau yeew Dakar Plateau. bon dama nekkoon euh, benn waay bu juddu Dakar Plateau njool sew rucc léegi nag may fréquenté benn salle bu nekkoon biir Thiès Gorée sama benn xarit bu naan Tafa yóbbu jox ma weñ ma commencé ci dem ba commencé. jamono yooyu à l'époque Mohamed Ndao Tyson moo nekkoon à la mode moo xewoon daal maanaam ci olof léegi nag man comme Tyson nekk benn waay boo xam ne dama ko bëgg trop trop trop trop trop trop yaa ngi dégg ni mu melee bëgg boppam civilisé bëgg sanse ma ne daal man daal foog ma mel comme grand bi quoi commencé di gëm am am amuuru ci musculation bi ak loolu noonu ba dem ba benn instant may ci plage Anse Bernard di entraîner rek foofu la ma Cheikh Ndiaye gisee instant yooyu mu ngi en affaire bu laa lay wax nii mu ngi en plein tournage euh, film bi appel de arènes gis ma rek jël ma figuration léegi amouru cinéma dugg ma benn nank nank nank nank ma commencé jouer ci ay café avec série boo xam te ne moom la sénégalais bi saraan am ay plusieurs vues ci ci YouTube bi commencé ñu may jël ci euh, sketch ndogul yi yaa ngi dégg ak ñoom tan bombe yaa ngi dégg léegi gars yi di ko suivre loolu chance bu ma am nag bokk ci. série yoo xamante ne dañu ñu ëpp vue ci Sénégal loolu moo tax ah, ma ah, nekk artiste quoi commencé nekk ci artiste yi bokk ci artiste yu mag yi quoi. franchement nag pour ne pas pour ne ñu naxante mooy maanaam man am na série yoo xamante ne dama ci bokk franchement gis gisuma sama bopp lu dul popularité la ma jox quoi popularité la ma jox. gisuma ci sama bopp côté financière côté financier xam nga affaire yooyu nangam nangam xaalis bi duggul am na yoo xam ne xaalis bi dugg na gis naa sam bopp mais am na yoo xam ne dara duggul mais popularité rek nga ci am. joué naa ci benn sketch sketch bi am ay sept ay sept sponsor wala lu ko ëpp yaa ngi dégg balaa muy commencé dañuy gis sponsor yëpp def seen pub mais gis ma sama bopp ma ne ñii kon dañuy encaissé xaalisu sponsor yi def ko seen poche doo comprendre mais à la nga koy gis sooy tourné te doo jox nit ki xolam sedd da ngay da ngay xool ay ati at ati at doo avancé. doo gis progression ci sa ci sa àdduna doo gis progression ci sa ci sa vie loolu moo tax man dit boo boo ko tourné jëlal benn som nga teg ko ci loxoom xolam sedd mais bis boo ko se boo seralul xolam rek xamal ne yow sa liggéey doo mos a progresser fi nga nekkoon rek ngay nekk. sama sport favori mooy mooy musculation su ma ko defulee trois jours day mel ni lekk ma ndox lekk ma lekk ma naanu ma. trois jours sans musculation day mel ni lekkuma naanuma loolu moo may dundal il faut que ma koy def bon loolu dama ci sonn dama ci sonn woowe nañ ma guy gi ba ci xeex moo tax ma bëgg ko man Tyson mooy sama mbër duma ko caaxaanee ñoom seen bopp xam nañ ko woowe nañ ma Rocky waa ba sonn ba ci xuloo moo tax ma bëgg ko woowe nañ ma Batika bu faas ba sonn moo tax mu bëgg ko ñeneen ñi nag naanaan dañuy dépassé dem ba naan Dennis Rodman comprendre nga lu ne ngay dégg mais doo comprendre am na ay mbër yoo xam ne Ama Baldé sax dama koy dégg mais musculation loolu mooy sama life ma ci gis affaire yu positif ma ci gis affaire yu négatif yenn yu positif yi ma ciy gis mooy ponkal bu xam boppam ponkal bu xam boppam laa wax de dina si créer yenn affaire na dooleem liggéey si garde rapproché wala dem ci boîte de nuit di liggéey ñu koy fay xaalisam lu mat wala mu nekk ma na ma demee ma nekk acteur cinéma loolu tamit loolu tamit affaire bu nice la mais ponkal boo xamante ne yaa ngi dégg dem di këf saaku jàmbur yi wala di sàcc portable jàmbur yi wala di entraîner fii ci CONUS bi kaay ma wax la benn affaire benn phénomène bu grave bu nekk fii ci CONUS bi CONUS baa ngi toj te yow yëgoo ko man fii laa taxaw benn maire escortement am na ñoo xamante ne seen koñ am na salle musculation mais duñ fa dem di musculation il faut ñu ñëw seen conus bi benn mère gis leen wala benn femme gis leen wala benn euh, benn xale bu jigéen gis leen intercepté leen am na ñoo xamante ne seen biir kër sax am na salle de musculation mais salle de musculation boobu ça intéressé wu leen ça ne les intéresse pas il faut que ñu génn ñëw si kii bi yow yaa ma gis instant bi c'est daal lañ nekk yaa ngi dégg ñu ngi si mois de mars il fait très froid à Dakar yaa ngi dégg maa ngi sol benn genre longue marche teg si maillot basket maa ngi nëbb sama yaram mais eh, climat bu mel nii mun naa la waatal ne si condition bi am na koo xam ne benn survêtement am la sol mais la moo tax sérail bi di ko rey mu sol survêtement day jaayu condition bi ngi fees da la koy gigolo musculation bi dañuy def pour loolu loolu lañ ci viser comme que am na nag ñu koy def négativement ñun nag ñu ngi koy def positivement ñu ngi siy entraîné di dóor suñu ay clip di dóor suñu ay film di dóor suñu ay série macha allah ba yàlla ëbbi leneen bind naa ko fii laa taxaw di entraîner maire bi gaara sama kanam di ma laaj ay Faidherbe bi xaw ma nan nan nan je ne sais pas ma ne ko mais Faidherbe bi ville la yow instant bi yaa ngi sans résidence maire mu ne ma doo yéeg yàlla nga nga woon ma nga ma Faidherbe ndekete maire bi ay tànk bi ma duggee si oto bi ndekete ay tànku caaxaan moo ko tax a jóg naan ma ay jaara sama kër maa ngi fii maa ngi fii je suis veuve samay doom nekkuñu fii ñu ngi Europe j'habite seul avec ma kii ma bonne maag sama jég maag sama sama jànk ñoo dëkk sama jànk day ñibbi weekend bi mun nga ñëw saa yu la neexee nangam sangam yomb yooyu noonu la gars yi war a bàyyi entraîné jàpp ceene yaa ngi dégg jublu si lu bon boo nekkulee ci boîte de nuit nga nekk garde rapproché wala nga joué ci nekk ci cinéma bi comme ni ñu koy defee noonu daal wasalaam ponkal bëgg boppam yaa ngi dégg def ko Mohamed Ndao Tyson wala sama waa ji Maurice yaa ngi gis noonu daal laa ko gisee man.